wajah tua kiliman takrim bana di syahri maulidiman bahri rabbana wajah tua kiliman takrim bana fi shahri mawlidi man bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ak bànneex ci teew fii ni ñu ko defee daaw teew ci sunu kanamu doom di sunu xarit Sëñ Abdou Khadir Cheikhouna Abdoul Ahad sëñ bi li nga taxawal day lu am solo la lu am njariñ la tamit ndax fi jamono ji toll cig yàq cig nax cig lëj sa moroom yépp nekk ci leneen ñu tolloog yow ci at yow nga jóg jëm ci sëñ bi jëm ji fàttaliku sa maam lu am am solo <laughs> ñu ngi leen ci sant bu baax di la ci gërëm di sant sa bokk yi nga bokkal sëriñ bi tañ teew ci seen teewaay rafet na lool day tegtal itam ni jëf juñ nangu la rek di sant tamit taalib yi fi teew yépp ak ñu bëggoon teew te teewuñu li lu ko ëpp solo amul ndax ku jëlatul bind war a nafar te lii ab nafar la ci ñun ñëpp ndax gisatuñ sëñ Abdu gisatuñ sëñ Tuubaa kon nag di def organisé bi yu mel nii lañ doon dund ak lañ doon doxee ñu koy nafar lu am njëriñ la ci ñun ñëpp kon tiyaaba ji rëy na waaye yàlla na la ba agsi ci ñun ñëpp barke sëñ Tuubaa boo gisee yoon wi agsi fii mu agsi dara warulu ko lu may waajur yu am jom rek te dëggu nag te jaar ci saatal mustaqima fas yéene dem roy seen waajur muy Seexul Xadim sàmm noonu la leen bàyyee bañ caa sof dara nag dañ ko moom dañ doon dañ doon sofuñu moom suuf suñu kon astafurlah suuf suñu dañoo sof ci liggéey sëñ bi rek sof nag ku koy def ko ne da ngay saf ñëpp waaye ko sof nag daal di soof ñëpp سرين توبا عندي في دين الاسلام داكو رافتال رك تارال لا با داف تزيل بوكو نجي داف واي سوسي دا سوسي دا ني في باي تام ني في باي نون لنجو سامي اكسي جي جامانو جي مو مل نا رور مي بارنا لول واي بودر بي ويدي ياغي في ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ياد وي ba mu koy tas dafa waxoon ne am na yat woo xam ne mi ngi fi te lu leer naa ñu la ci am li fi jógal ci bëgg a def dana dal ci sa kaw na ñëpp yàq gi nag dafa bari léegi ndax bari na ci média yoo xam dañuy yàq bari na ci télé yoo xam dañuy yàq dégg yoo xam dañuy yàq bari ci nit ñoo xam tamit dañuy jóg def ay xamla ay campagne ci nit ñi ngir woyefal diine woyefal talibé woyefal pas ta lol amul ben jey man jox nañ ma ci ay document barki dem mi ngi sama am na lu ma ci liir waaye am na loo xam ne ñëwuma koo sax ndax njàng ñang te yëpp pass pass rek lañu ñu jub na ko barki dem ñu wax Babacar ba mo jox document bi ñu bindi te nisaan biñu jël ngir. combattre yoonu murit wàññi dooleem daal jurub cinquante ans ci kanam seen i ne gis nañ te ña ko def kat du ñuy Sénégal ña koy liggéey ña koy lijjanti ña koy ña dox ay ñeneen lañ ku mel ni Arabie gis ngeen ko Oustaz Mouhamad Diop dañ leen dal fële génn leen réew ma sax far andi ruwaayam bi lañ bëgg ñu koy doxal. te na leen neexe loolu nag xam ne lañ loolu lañ bëgg mu agsi fi ci Sénégal ba tax na ñoom ne ñett rek lañ soxla ñett ku bokk ci sëñ Touba directement sëtam ndax xam nañu sëñ Touba mënuñ ko dara ay doom mënuñ dara waaye xaj na bu ñu amee ab sëtam message bi ñu bëgg ñi koy jaarale ci moom xaj na li bëgg dañ ko mën a am wala ab conférence boo xam ni. day xam fiq xam tasawuf xamul murit xam suruutu islam yëpp ba noppi ndeyam ak bàyyi mu juddoo ci yoon bi boo defee message yi ñu jàll dem bu ñu ko jàll dem xaj na lañ bëgg daañu ko mën a mooy borom mbooloo ñett yooyu daal la ñuy wax ndax xam nañu murit moom euh, jàpp nañ ni boo ñëwee raam si jóor rek ñu boole seen biir te ñoom neen mën nañoo raam Ndakaar ba Tuuba nañ bo len jox xaalisam li nga bëgg dank mom moom te ñom ñaan ñaane duñ ay milliards lañu ñuy joxe joxuñ ay millions ay milliards lañu ñuy joxe comme loolu am nak nag nun ñi sëñ bi yitteel war nañu xam ni jóg ngir break loolu loolu nak ton xulo doon xex xamna bil hikma lay doon wala mawxis al azama tay mo di jafe nag ku nite moo ko man ku am xam-xam moo ko man ku am positif moo ko man ndax doo tàyyi mukk ndax looy dox te jiitlu woo ci positif bu bu yàggee da ngay sonn da ngay daj te borom positif moom du tàyyi mukk na seet ko ci mag ñi àndoon ak sëñ bi ak ñi sëñ bi defar loolu day daal di laaj sa kanam Seydina Omar ku ne xam na ku dëgër la gëmoon sallallahu alayhi wa sallam ku doon jaar ci yoon ku bañoon laboon la tamit waaye jamonoy xilaafaam moom daana tëdd sax bu guddee muy wër dëkk yi di xool lu xew ci dëkk bi fi xew ñu nekk fi juba yeeg way def sa naka sul noonu yi ba am benn bis mu romb génn kër ay kàccoor ne ca benn ñu ngay kaf ñu ngay naan sàngal ñu ngay def leen mu ñëw ak meram ak bëggam lu baax ak bañ lu bon tax mu ñëw rek yëg cëpp li fekk leen ci kër gi dal ci seen kaw ñu ne ko ah suñ mooy suñ borom benn yoon yow nga ko ñett yoon te muy dëggit ndax suñ borom dafa wax ni laa tadduxloo bu yatan xayri bu yatikum xataa tastasi yow da ngaa dugg ci digg suñ borom dafa wax ne booy dugg ci kër da fëgg te jaar ci bunt bi wax na itam wa atul bu yata min abwaabiha yow fëggu waxu salaamaaleykum دغنا سي دين بي وخني تم ولا تجسو دا نغي دو انكو بول نكوي تم لقد بعث الله من هو خير منك الا من هو شر مني وامره برفق يالا يوني نك لا گن فوف كونو گنا بون داكو واخ ما داف دان موسى يونت لا هارون مبوكم يونت لا كوني خامن فراونا كاتيو لا موم مو گنا كاتيو ري ني واي بانتي يوني نيوم ñaar fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha kon yëf yi ndànk-ndànk la foofu la ñu waaye jaar ba li ñu bëgg ñu am ko sëñ ji di yaag ñi nga bokkal sëñ bi ñëpp ak bokki taalib yëpp ñu ngi leen di fàttali ak di leen soññ lu mel ni ñu koy bari fa ñuy wootee caaxaan day fees dell boo demoon ci stade ba football neex day day fees dell bu dee bëri ba day fees dell ñooñu nag mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne ba soxora jot ba mu xaw na ñooñu ñooy wujj foofu waaye ñiñ settee itam ilal la si na amal ji mooy ñi ñëw ñi wujj fii te ñooñu la suñu borom soxla te ñoo fi daje te lu bon la ci sëñ Saaliw daan wax rek nee na dëkk yi yenn yi dëkk yi lu mel ni soow nee na lu bon lu bon dafee bare bare bare bare bu mel ni dafa dagan lu baax néew fa néew a néew ba mel ni dafa aram te fekk lu bon du yàgg yàgg yàgg lu mu bari bari ak li ci ñëpp jëm du tax mu dagan mukk lu baax itam lu ko nit ñi gën a mooy gën a gën a woon gannaaw lutax tax ma ràmb kon li ngay def ni ta def ko defal seigne touba diko defal sa mam kon ni sax ci tewee ci te xam aw yoon nga yoon bi da nga jaan nak boko waccul da nga taseeg sa mam seigne abdou da nga taseeg mam seigne touba Tuubaa gaay yu bax yeb ta dekk ba nga jëm da nga jaan ak ko ànd ak yow ngir baña guddal rek ndax coono bi ak wara del legi ñi ngi sant ñi fi teew ñep dilen gërëm dilen ñaan noonu na xex bi ñi wax ñi ngi ci bu baax a baax ndax waxtaan naa na jek al khalifatu am cheikh Sidil Maxtaar muy mbolo mo xam dañuy jóg kenal sëñ bi ci wax ak ci jëf ak leggel ndax ku ne xam nañ nit ñaa ngi wax loo xam ne xamuñ dara ci sëñ bi dafa am benn waay bu ma sa ñëw ci sëñ Abdou Lahad fa la ma fekk tubaab bi dal mooy jamono yi ba mos xam daanam bëgg ko def film ànd ak tubaab bi mu waxee ba noppi sëñ bi ne ko ah loolu man ànduma ci ndax xamoo ci sëñ bi dara moo tudd ak kilifan ne ko ah boobu day nu ko xamal bu waxtaan moo tudd turam li ñu xam lépp mën ko wax. sëñ bi nag kooku daa xam sëñ Tuubaa rek fekkiwu ko fa ñi fi nekkoon duñu moroom sax waaye waxuma duñu moroom yi bàyyi waxuma ak moroom boo koy xamal sëñ bi ni ko sëñ Tuubaa ko xam a ñëw fii di ko nett mooy tubaab bi ak Samba Lawbe ak murid bi nekk ci biir tubaab bi moom bu ko waxee lim xam sëñ Tuubaa bu ko waxee benn moroom tubaab du ko nawlu ba koy fay weer Samba Lawbe xam na sëñ bu baax a baax dañuy tubaab yi xam nañ sëñ Tuubaa wér-wér waaye duñ ko wax mukk ndax kon seen i morom duñ leen naw la ba leen dafay weer daane sàmbala bi tam xam na ko waaye faatu na mën mën faatu na di ko waxat murid bi ñëw ci kaw suuf xamu waaye bu duggee ci biir bàmmeel xam waaye du mën a dellusi di ko waxat mel noonu nag nga am ko mu féetale fépp di sa lépp hmm? te nekk serofot dañ koy gàkkal gis nga fóotu gàkk moo gën a yomb fóot mu ni mu ni lu sa mbubb taqee la da ngay dem fóoti ko waaye soo bàyyee bam lépp ko lim da nga perte de sang da nga jëndi saabu tax sax mu set kon ak sëñ ko war a bàyyee ba mu sax ci xol yi ñi ko xamul dañuy jàpp ne dëgg la dara joon dëgg hmm? am na ay way yoo xam ne dañ ko moom sëñ bi te defu ko madame Ponti xaw man am naa kii demee dama ko mokkalul voilà voilà mu am naa am na am na am na waaw mu bokk yooyu yëpp ay borom xam-xam a ko def te xeex sëñ bi ñi xeex sëñ bi nag su fekkoon dañoo néew doole kon waaye bu fekkoon bu ko làmb daj ko mën koo xool gis ko ñu fi bàyyi tam mu bàyyi leen xaj na sago adduna bi comme nag yàlla dugal na ba du ñuy ay néew doole ñuy jërëm loo tax xeex bi gën a métti waaye nag comme sëñ bi jox na ko te duñ sonn bu ñu loolu yitteel dama la wax dañu war a yitteel mooy jëmmi sëñ bi rek waaye alal ji moom ku dund am ko bu mu la yitteel na sëñ Saliou waxoon ñaari biir bi nekk rek te defal sa këru àdduna ni sëñ Moussa daan waxe defal sa këru àdduna ba mu tës sawara bàyyi saw yaram mën naa ñàkk te nee na nit ñi léegi noonu lañuy def seen këru àdduna yi dañ koy defar defar fet du lakk fenn bàyyi saw yaram تيرم هو ورجل فورم كن سين بيال توفيق أنجر مسين توا أجمد أجمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البر كرماني والبهر سخادي بالفيد قرآنا له خطاب يا يوم مسبت في وتاني وبان لي أمسي ما أبصار برآنا نبهتني أمسي